kilifa gu mag ñu koy wax Seydi Mokhtar mbay ñu gën koo xam ci boroom kun fa yàqun nekk fii ci Sicap Mbao dakaar sëñ Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax. soxna Rama ñu ngi lay fay di la tatagal euh, di la dalal ci jataay bi nii ñu bàyyi xel di nuyu képp ku ñuy déglu. nañ la ko wax Mokhtar Mbaye borom kun fa buñ la ko waxee Seydi Mokhtar Mbaye borom kun fa yàqun mawjur fi Dakar mu ngi Dakar daiman euh nit ñi xam nañ ko bu baaxa baaxa baax xam nañ ko si kun fa yëkkuntim xam nañ ne bu ñaané rek ñaan gi fay nangu kep ku bindal xaraf jox la dana sa aajo dina faju wala kep ko xamne kep ko xamne ki defal la ñaan rek di nga am jàmm ci sa mbir ci lepp lo soxla moo tax ñu ne Seydi Muxtaar Mbay borom kun fa yokkun kun fa gi nag duut sax moo ko jox boppam lu law la maanaam àddina moo dox di dox bañ tuddee ko ko ndax ñi fiy ñëw ñoo dem ba xam ne moom borom kun fa yokkun la yàllaa ko jagleel kun fa yokkun gi moo tax ñu askanee ko kun fa yokkun waaye du turuwum tànnal boppam waaye turuwuñ ko tànnal la mbiri ñaan rek mbiri duxaaw lañuy ñuy yëngatu mbiram ñaan rek gis nga ko mbiram ñaan dong la ñuy yëngatu bind alquran di aajo yi jaami yàlla yi muy sunguf ak ren ak lépp loo xam ne indi na gàllankoor doomu aadama rek bu fi teewee incha allah rabbi danañ ko ñaanal te incha allah dana ci am jàmm. ci wàllu fajum rab mën nañ la see wax wax ji mën na gudd lool sax waaye dañ koy gàttal soxna Rama ndax nit ñi fi ni jamono bii ma toog di wax ak yow sax nit ñaa ngi toog pour di ma soxla ñu ngi taxaw. di ma soxla jataay bi dañ koy tënk rek mu gaaw ndax da nit laa koo xam ne ñëpp ma soxla fajam rab dañ koy def te képp ku fi ñëw indi rab moo xam rab ñaari façon dof daal si nit bu amee problème muy wàllu rab benn dafa am rab walla mu tox ba nga xam ne yàlla jaxase na xelam nekkatut walla nit liggéey ko ba mu dof si ñetti anam yooyu nag képp ku fi ñëw rek dañ la ko fajal gawa lu gawa gawa, gaaw a gaaw ndax ne wane na la fi moy borom kun fa yekun bu ñaané rek ñaan gi day nangu luñ la jox rek bo démé ci lu matu tarafatul hayni rek dang koy tek bët waaw ku fi ñew ak rab rek ak rab bu mëna doon ak fo mëna joggé rek insha allah rabbi da nga takalé ko rawoowu dañ ko dindi ci lu matut ay minute sax lañuy wax wala lu gën a gaaw loola borom xel mu wañeku mon dañ koy faj moy comme rabbi rek da xam ko xamne xelam dafa wañeku raba ko ko def ay mamam wala ay mami mamatam ño xamone rab xam nga nit ñi dañuy wax na rab amul soxna soxna rama waye rab lu am la ndax li tax ñu ne la rab amna qul uhiya ilayya annahu istamaha nafaru minal jinni waaw alquran bu nan lay waxe dom adama taxaw na li amut xanaa dom adama bobu mom xelawut wala demul yëri alquran ji tiri istama nafru min jinni fa ina samina Quranan hajaban wa yàlla nee na jinne ñoom sax ñoo wax ne fa qaaloo ñu ngi deg ina samina Quranan hajaban ñu ngi al alquran ju xamne al alquran ju japp ju kowe la waaw léegi nag nit ki taxaw fele na di commentaire nan rab hamoud wa rab dafa teyewu sa mbokk wala yow rab dafa teyewu te dana la xamal len dox kep kuy dox si adina am nga rab mo xam rab bu bax la wala bu bon la waye nit du ñak rab kullu kullu nasu rek bepp doom adamu bo gis muy dox rek ak ñaari tank rek rab ba xam na rab rawa nak dafa bax wala dafa bon lañuy wax waaw te loolu nak kep ko xamne daf la andil problème nga ñew fi inshallah allah rabbi do ko walé moy liñ la wax rek kun fa yakun bu la ko yàlla defalee rek yow lepp lo bëgg mu nekk rek loolu day nekk fay nekk xaliban ci lu gaaw amu demal ma dikk bu dee soxna soo xam ne dafa am rab boo fi ñëwee incha allah rab bi daañ la ko fajal bu dee koo xam ne dafa waroon a jigéen la joo xam ne dafa am rab ba du mën a am doom wala góor la goo xam ne rab a ko téye ba mën a am doom loola dañ la koy fajal si wàllu rab daal soxna si si gàttal ak point boo fi dikkee si wàllum rab boo egsee doo ko ñibbee sa kër incha allah bi bépp jàngoro bu ñu indil te ñu xam ko xool ko yër ko dañ xam ndax mën nañ ko faj wala nañ ko faj duñ ne lépp la ñuy faj waaye nag bëri na lu ñu yàlla jagleel ñu mun ko faj lu mel ni commerçant nga woon yàlla def na sa mbir daa yàqu yàqu na wala commerçant nga bëgg sa mbir yokk xam na ñaan yoo xam ne suñ la ko defalee incha allah rabbi ku jaay nga jaay ku jaayut nga jaay da nga jaay dama ne la marchandise mi nga jóor di ko jaay bu ko nit ñi di jënd di ko sànni ji sax daañ la wax ñaata duhula kuy lambati dafa am secret yoo xam ne buñ la ko defalee yow duhula ku ñuy soofantal la budda rekk nit ñi dañ lay itteewoo ak lépp loo mën a yëngu moo xam nag si bépp anam boo mën a nekk rek si wàllu njënd ak njaay moo xam politicien nga moo xam loo mën a doon daal kenn dootul la soofantal ñëpp dañ lay jox xalaax ñëpp dañ lay sopp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñëpp lay bëgg. dañ fi gis ay butéel gis fi ay béjjën gis fi ay kaamir ak ay bind ñu bëggoon nga leeralal ñu ci loolu. waaw loolu ñu ngi leen si leeralal li mu ngi mel ni comme butéel yi ak euh, mbind mi xale bi di bind ak man mi sax daay man damay bind euh, ñu gën maa xam si butéel yeeg béjjén bii béjjén bii nag du béjjén ab béjjén kese dafa am béjjén ak lu mu doon loola nag pour ñu di ko leeral si tegtal bi sax soxna si dafay xaw a kii nañ ko tënk rek si bidon yi nii tey faji xaajo la am na si ñoo xam ne bu ñu ñëwee euh, boo leen joxee alxuraan bi wax leen nuñ ko war a liggéeyee dafay dañ siy am ay xataxan maanaam bu ñu demee duñ ko xam léegi am na si ñoo xam ne bu ñu ñëwee jàmbatal ñu soxla dafay fekk ñun liggéey nañ bidon yoo xam ne soxla bi ñuy wax dafay dëppoog bidon yi ñu tànn ci bidon yi benn jox la pour nga sangoo ko sa soxla mën a faju bu la bidon gënalee ñu jox la bidon bu la mbind gënalee tam ñu jox la mbind loolu moo tax bidon yi nekk fii euh, kaamil alxuraan yi dafa am ñoo xam ne bu ñu ñëwee ñu seetal leen moo xam soxla bu ñu mën a am euh, bu si sarax feeñee dañ leen di jëndaloo kaamil ñu war koo génnee sarax xam na si ñoo xam ne nag dañ leen di war a wàcceel kaamil ñaanal leen si kaamil yi balaa ñu koy avant ñu koy saraxe avant ñu koy saraxe dañ leen si wàcceel kaamil bi seet xale yu seet wecc ñu jàngal la bàqara ba naa si nga teewal sa xaajo ñu ñaanal la si képp koo xam ne yaa nga Europe wala yaa nga fii ak foo mën a nekk te sa loxo jot si wut ñi suñ déggantee nga yónnee ñu lu ñuy yónnee ñu defal ñaan yi incha allah rabbi ñaan nga dana la fekk fo meuna nek bu soobee yalla lii mom ni wax ni weddi mhm. gis bokku sax mhm. xam nga ki gis mënatuta weddi li ni man sama jëmi bop ma koy bind mhm. ndax man samay ñaan dama koy jox ak du lo xamne ne dama koy def ay kasaw kasaw ñaan gi su laaje ma tok bindal lako sama loxo momay mom momay gënal ma defal lako bindal la ba mat jox la ndax lulu kun fa yekun giñ la wax si xalimba gi lañ ko def ndax ñin dañoo nekkon sa àll ba di taxani mat di bay di jaaru euh, daan tok di dem di liggey liggey yo xamne pour suñu wayjur rek lañ nekk nak suñu wayjur wo mo ñu jox xam-xam bi muy alaaji cheikh mbay nga xamne ne mu nga dëkk sa côté Koungheul dëkku Dakar si walu rap dafa xam luñ luñ doxo doxo dox bañ jox ñi ci luñ koy fajee si wàllu xam-xam bi tim dafa xam fuñ ko jëlee dañ ko tarbiya ba tax xalimba gi ñu ne la moy kun fa xalimba gi lépp luñ si namu rek allah rabbi xalimba gi dana dana dana ko faj léegi mbind mi kenn duma ko bindal man am na loo xam ne maa koy maa bind mbind maa ko maa koy bind bàqar ba lu ma si soxla rek ak fu mu mën a nekk rek damay hubbi bindal ko sama bopp nee naa la faj ak aajo su borom bëggee aajoom di faju jëmm ji mooy am faj ak xaajo jëmm ji la yàlla di nangu ñaan duwul koo ñaan rek yàlla nangu say ñaan waaye dafa am jëmm yoo xam ne yàlla rus na leen ba nga xam ne képp ku ñaanal rek borom dana wax alhamdulilahi rabbi alamin waaw jërëjëf so macha allah loolu leer na suñu beneen question dañ fi gis ay leket leket yaa ngi nii leket yaa ngi nii léegi dañ bëggoon a xam leket yi lu muy jariñ ak liñ ci bind nii pour lan la ndax sarax la wala lu muy jariñ daal bëgg nañu wax nga leeral lañu daal leket yi lu muy jariñ waaw leket yi dafa am yoo xam ne wàllu ubbeef lay doon am na yenn saafara yoo xam ne la ko joxee lu ñuy bëgg mooy nga di ko sangoo ci leket parce que leket cosaan la wala mooy ndab ndab yooyu ñuy xett law bi di ko xett nga xam ne garab lay doon ñun xam na siñ saafara yoo xam ne du laal mbiram tubaab dañuy comme masalan suñ la ko joxee tey saafara si soo koy defar si leket gii nga koy jambu def ko ci leket gi nak def nañ ci ay khatim amna ci yo xamne karange la amna ci yo xamne fatu la ubbeef la loolu mo waral nga fekk fi leket yi waaw suñ la joxe khatim safara ci won la wala na la li nga koy sango dañuy bëgg nga defale ñu ko si niñ la ko waxe mo ñuy gëna arranger bëggun nga dem rek defé ko yow niñ ko bëggé dañ ñuy déglu ak xel ñu jox la safara yi nga xamne safara yi soko jëfëndiko rek inshallah rabbi sa aju dana faju waaw motax tax di nek fi ma sha allah lol leer na señ mbay borom kun fa yakun nek fi ci sikap mbaw Dakar señ mbay amna ño xamanteni dañuy bëgg ay walu bayre waaw mbayre comme sank leralal nga ñu ko ci mbayre njaay amna ño xamanteni dañu bëgg siiw waaw ñi dañu bëgg di eh, nek ci politique bi di bëgg gëna avancer waaw ndax bayre dafa bëri te wuté waaw légui nga bëgg nga leeralal ñu ci walu mbayre Wow, si wàllu bayre danañ la si leeralal Amna na si loo xam ne dañ koy si wàllu alquran am na loo xam ne dañ koy si sunguf ak ren rama soxna si maanaam daal sunguf ak ren dafa bëri ñu si yëngatu te mbir mi xaw a xam am ay alquran yoo xam ne dañ koy composé ak garab waaye garab ga tim dafa xam nuñ koy wutee rama amna na garab yoo xam ne booy dem si ñoom da nga di bett nu ñuy bettee garab loolu sëriñ moo ko xam am na garab yoo xam ne soo demee ba si ñoom sa ker gi ngay taxaw dox jëm si ndey ji doo ko mën a jëriñoo garab ga am na garab goo xam ne da ñëw ba si taatu garab gi dox jëm sa garab ker ga dafa am garab yoo xam ne nag dañ koy wuti tàkkusaan am yu ñuy wuti digg bëccëg am yu ñuy wuti suba am yu ñuy wuti digg guddi ndax te garab du yëpp du ne da ngay jóg rek dem sa garab ga rek xam la nga sa bëgg waaw comme tey buñ ne la garabu xexu garabu new garabu xey garabu dimbu garabu son garabu rat garabu keng xam nga garab dal masalan dafa xam tektal yu ci nek da nga wara xam jimu ja waye garab sangam rek baxna nga dem huti garab gu dedet ñun joxe wu ñoo non xam-xam bi ñun xam-xam bi dañu nek sa hal ba ñu ñuy wan garab yi bi ren ba nga soxla bi xobe ya nga soxla bi xasma nga soxla si ko garab gi da ngay dem si bi euro takusan amna ci yo xamne boy wuti garab gi takusan rek ngay dem amna yo xamne boy ne dem dig guddi ngay dem amna yo xamne timis amna yo xamne suba teel ngay dem wuti ci garab gi si garab dafa am ay yoon yu bare bare bare pour nga man ko dox pour meuna fajj faj bi motax ñu ne la fi kun fa yekun gi fi la nek kun fa yekun gi fi la nek parce que lolu tektal boko xamut nga dem rek jël garab rek daal di ñew rek na garab amna garab sangam dedet dafa am nu garab nu ñu wuti ci garab ak garab mana la mëna wax mo xam beet la mo xam sumpu la mo xam new la mo xam dakar la mo xam lu mëna doon dafa am nuñ koy utiliser soxna rama kasaale ko ni ko nit ñi di defee légui man da ko ruma ci da nga wara jang jàng garab ba paré mëna fajj garab waaw bayré bi pour wàllu euh, li nga wax euh, ko xamné da fay yëngatu ci mbiram politique wala mo xam lu mu bëgg manam public la ma public la bëgg mbiram manam mbiram public la bëgg mo xam mbërëm làmb la mo xam politicien bu ku bëgg falu député la mo xam ku bëgg ministre la mo xam ku bëgg ñu ko mo xam goor la wala jigen la dafa am wa rafa'na ma kana haliyan wa rafa'na lak sikraka wa rafa'na fawqakum rafax wa rafa'na bawdakum fawqa war ñenti ñenti wa rafa'na yoyu ñin dañ koy jël liggéey la ci ak yëkëte ko ñu tuddé ko ñonkoos nga xam ne képp ku ko am sangoo ko nit ñi daañ la dégg sa dama ne la soo ko sangoo si sa fami wala sa askan wala sa sa njaboot ak ku mën a doon bu soobee yàlla ñooña da leen dimbali ji yow ëllëg parce que ñeenti war a fax naa yooyu mooy ñeenti xible yi xam nga dañ leen a penku xarfu ba jéeri ba jax ñeenti xible yooyu moom ngay dajale boo ko dajalee taaw nga àddina ñu ne la boo ko dajalee taaw nga dakaar soo ko dajalee taaw nga Sénégal am na nag luñ si mottalee loola jarul tudd waaye daal ku bëgg bayre moo xam góor la moo xam jigéen la soo ñëwee fii incha allah rabbi ñëpp daañu la dégg. waaw rab ak jinne benn la rek tur yi ñoo fi ñëw rek maanaam ñii dañoo ne rab ñii di jinne mais lii mooy am problème soxna raba euh, rab ak jinne ak ku xuddaam ak raawaan. raba ak jinne la ñaari tur la rek yo xam ne la soti si ak def ci la rek xam nga ki ne def si ki ne soti si ñaari bal la andi waaye ñaari baat yi ben la léegi ñu ne la rab ak jinne mën nañ ko teunk ci ben bar muy rab mooy jinne jinne moy rab ku mën faj rab da nga mën faj jinne ku faj jinne da nga faj rab ben la khudam moy dom rawan nak moy muskila ba nak parce que damay da ngay deg ku ne xamna rawan <laughs> waaye waxuma la am naa raaw waaye yow sax boo moytuwul xamoo rab parce que raawaan moo leen ëpp doole mooy seen baay mooy seen maam ñoom ñëpp gis nga soxna Rama boroom raawaan bu nekkee fii si si koñ bii nii dëkk fi danaa la xamal ne lu ma téeméeri kër wala junnee kër si si penkum borom raawaan bi dana ko aar dana ko aar si xarfum dana ko aar si ndeyjooram dana ko aar si càmmooyam kooku mooy nekk kilifa soo déggee boroom raawaan borom rawan, dafa xam lu tax ñu rawan. Rawan raawaan nag soxna si euh, joxe du comme euh, ben jam yalla bo xamne rek da ngay kii déedéet rawan dafa am wilaya manam da ngay jël kurus di dund ci l'islam di wirde di wirde di wirde ba yalla may la rawan moy waral nga samp ci koñ bi kër wala wala juné kër yo xamne ne nga len si côté penku ak xarfu ba jeri ba jax ben saytane du fa meuna yak ndax sa jëm yow rawan saytane du ko rab du ko jégué ba ila yomi gis nga ni di def ciunkor non la non la rawan di def rab motax borong borom rawan mo upp doole borom rab motax kilifa yi mag yi ñek ñeul ben ba ci sa ëwal ba sa akhir kilifa gu mo sa gane si ci koñ bi rek da nga jaxase wa koñ ba yépp ndax képp ku fay saytaane rek danga koy dàq da koy génne koñ ba soit nga génn mu del siwaat am na si ñoo xam ne yàlla may na leen mbaax goo xam ne sax buñ dëkkee si buñ ñëwee si buñ dëkkee si koñ bi koñ ba aar nañ ko ba dootul koñ ba sax dootul amati yàq for ndax seen wilaaya léegi nag dangay gis ko taxaw rek naan waaw man borom raawaan xamul raawaan xamul fu raawaan di jógee xamul fu raawaan di xëyee xamul fu raawaan di gontee bu ñu boole raawaan ak rab bu ko kenn di boole loolu daa ko si rawan fu mu rab dana ko sore lu mat euh, manam buñ koy misal dana mat fukki kilometre jurom, rawa dana daw lu tollu nono dok fa meuna nek borom rawan du tiaxan motax bari na ku ne la amna rawan fu ko amé mom dafa xam lu lu tax ñu ne ko xam nga rawan ndax kurisam gi mom fatiha bëgg wax ne amna rawan fu mu koy amee ah waaye waaye nañu seetaat mbir mi waaw rawan di yombu taxam rab nang mom bari na ci Sénégal waaw xale bu jigéen bu la romb wala góor gu la romb ñaaree mën ngaa gis yi moom rab donte waxul la ko sax yow mën nga ko see def kort waaw dañ koy faj su fekkee ma ne soxna si dañ la ko def boo egsee ñu dindi la ko mu wér kàkk su fekkee ne dañ la ko mësu def nga bañ ñu def la ko boo ñëwee ñu defal loo xam ne kenn du la kort kenn du kort sax sa njaboot maanaam masalan si comme lii nga wax ni leket yi am na si yoo xam ne buñ koy liggéey si sa kër dañ leen am luy aar dëkk am loo xam ne day aar réew am loo xam ne dafay aar kër personnel sa kër nga bëgg mu aaru dafa am lu ñu lay liggéeyal nga def ko sa kër ga kër ga aaru na mbas du fa dugg seytaane du fa yàq dof du fa yeewoo laa ku laago laago maanaam ñu ne diw loxo ba di wala diw tànk ba loolu du fa am say doom yëpp dañuy cëtëng cëtëng yi di dox ak ñaari tànk di la romb di la wéy doo xam doo jur ko manqué loola dafa nag yow yaay njëkk jóg yow mi nga xam ne yaay sëy moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki yaay njëkk a jóg ci sa bopp pour sa kër bu fa loolu am loolu soo ñëwee ñu defal la loo xam ne incha allah bi sa kër du am laago du am ku fa dof du am benn doomu aadama boo xam ne dafay am problème te képp lu waaye di yëngatu dana barke foofa loolu sa biit kër gi lañ koy def boobaa. ñu xam nga soxna Rama ñu lay wax ne rek àddina gis nga li nit ki man du jafé ci mom waye li jafé moy li nga man gis nga tay so ma def looloo xam ne mënuma ko yow so xolé rek nga xol ni may défé rek war nga xamné ki kii ko imposé mënu ko waye nit lim man ko imposé rek day yomb ci mom mu ngi melni masalan tay nga ne ma waccel ma kamilu alquran bi dama man alquran bu ma neexee ma téyé kaamil bi fu mu ñu ne la alif laam mim fatiha la dalee ba si mu ne jënati wa naas yi su ma neexee sax daanaka la mu si xool du bëri yow sa jëmi bopp dangay ngay xam ne kii mën na alquran ndax ni mu koy jàngee léegi li ma laaj noonu pour wàllu kayit moo xam foo mën a nekk si àddina nga am fa xattan maanaam nga am fa jafe-jafe problème dikkal na la fa moo xam si wàllu police la moo xam si wàllu kayit la moo xam problème boo mën a am suñu soo ñu jotee ñu wax ak yow incha allah da nga am kayit yu wér. waxuñ la këyit yoo xam ne këyit yu ñuy xiiri xaala la këyit yu wér ngay am te dañ lay defal ñaan te incha allah rabbi këyit yi nga bëgg da ko am si lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw nañ koy defee nuñ koy waxee nuñ koy looloo loolu si yow des na si yow client bi soxla da nga jot ma wax seeg yow incha allah rabbi këyit boobu moom dana nekk si sa loxo incha allah ak këyit boo mën a soxla si àddina du jafe bu ñu boo ñu jotee téléphone rek da nga si da jot si lu gaaw. macha allah. leer na fi euh benen bi ci top mu ngi nek numéro 66 410 58 63 ñaari numéro yooyu képp ku ma ci soxla bo mo woyé da nga ma jot inshallah allah rabbi waaw moy ci tektal bo xamné ci walu lepp aaju bepp aaju bo am nak bul ko xeeb wax ñuko xam nga nit lo jambar jambar mëno faj ko xamul lu ko dal ci walu seet nak lajuñ sa sax waye fofu lañ gëna ayé ci si fo mëna mën a nekk si adina, nga woo ñu téléphone jox ñu sa turu yaay ak sa turu euh, sa tur incha allah rabbi dañ la wax si sét gi lo xamné ne du deñ dañ la wax sa awal ak sa akhir waaw sét lool mo xamul sax demal ma dik fo ñu mëna way wooy téléphone rek nga né dama bëgg sélu nangam rek la ngay sélu dana leer sa bop bi incha allah rabbi waaw Euh, lu ñuy tàggatoo mooy ñu ngi leen di gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a déplacé ñëw fii euh, li ko dalee si seen kilifa gi leen fi yebal nga xam ne sama xarit la maa ngi moom yàgg nañu ñu xaritoo ànd si lu ne nag yàlla def mu di ma jàppale si côté bu ne amul lenn loo xam ne bañal na ma ko si àddina lu ma ko wax rek dana ma nangul loola ba deux fois sax daf may wax di ma imposé loo xam ne sax dama naan ko sëñ bi loolu de kii mu ne ma déedéet man dama la yalla def rek mu bëgg la te dipi sa daara ji ba bis yalla tay bi ñu ngi and ta xam nga nit ko xamne da nga naan dem sa àll bu di taxani say mat di yenu di ñew di sol yiri xoteeku di tëdd ci duure ji yow malaan mu baax sax da lay të do yeb do ko soxla soxlu ñin adina soxlu ñu adina waye luñ soxla moy yalla te yalla am ko dafa yombul léegi nag yalla mañi boole hon ni teunk ñu ci watawaso bil haqi watawaso bis sabri loola sa lañ di ànd moom ba bis yàlla tey bii moo tax lii sax bëri nañu ko bëggoon ci man waaye dama leen ko bañal waaye moom nag mënuma koy gàntal maa ngi koy ñaanal di ñaanal euh, yéen ñi nekk ci liggéeyam yéen ñëpp yàlla na leen yàlla yëkkati yàlla na leen yàlla may liggéey bu set wecc wecc wecc wecc yàlla na leen yàlla yëkkati ba nga xam ne képp koo xam ne nekk na ci mbir mii yàlla na ngeen ko teg loxo ni asamaan tiimee doom euh, nit ñi yàlla na ngeen ko tiimee képp ku nekk ci média yi te incha allah rabbi da ngeen ko tiim ndax man nee naa leen fii mooy borom kun fa yëkkun gi kun fa yëkkun gii nii nii nii moom fii lañ koy defee incha allah rabbi képp ku fi ñëw soxna si doo mën a indi ajo boo mën a indi doo ko ñibbi waale waaw maa ngi ciy profité di nuyu sénégalais yépp nag di leen gërëm yéen ñëpp su ngeen eggee ngeen ne ko jot naa mbiram gërëm naa ko gërëm naa ko gërëm naa ko te moom xam na ni gërëm naa ko waaw jërëjëf. macha allah loolu leer na mbokk yi ñu ngi leen di fi la suñu émission di yam waa Saloum Actu euh, Saloum Tektal seet si woon kilifa gu mag ñu koy wax Serigne Mokhtar Mbaye borom kun fa yakun nekk fii ci Sicap Mbaw Dakar Kër Massa Dakar ku ko bëgg a jot yaa ngi koy jotee ci 77.